ku am sëriñ Touba baa nga bokk ci moom ñekkoo dara bay jaay sa ngor ci leneen bu loola amoon njariñ yàlla teg ko ci loxoom ku ànd ak sëriñ Touba jërul ngay tiit dara mën na sëkk kii ku topp ci sëriñ Touba jërul ngay gestu wëccoo lu mel ne moom sa gannaaw ku womatu ci sëriñ Touba jërul ngay ragal pakk fi mu lay jaarale fépp a leer kon nanu ko topp di wéy ci ay ndigalam di moytu ay tereem wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëñ bi nun murit bu nu xalaatee mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit safuma ndegam amoo keefa tuuba am nga xeeb naa ko mboolem ku waay mën a gëm gëm bamba moo gën a wér man ku gëmul bamba mi danoo war a dëkkal sunuy xol sëñ Tuubaa rawatinag waaja sëñ bi daa war a dëkk ci sunu xol yi sëñ bi nun waruñoo xaar dara ci àddina lu dul sëñ Tuubaa wallaahi war ñoo bëgg dajal dara ci kaw suuf lu dul sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek dana war a bëgg